<clears throat> waaw asalaamaaleykum <clears throat> mbokk yi ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax waaw euh, seen frère ma ñëwaat tey rek am benn waxtaan bu gàtt boo xam ne dama koy waxtaan ak patriotes yi à travers le Sénégal li xew ci Sénégal xale bi juddu démb sax xam na ne masul am ci suñu histoire réew maanaam c'est une révolution d'une population qui dit naaf à un à un système dictatorial gis nañu démb li nga xam ne moom moo xew daaru mufti moo Diagne Fada génne ay nerviam ñuy tirer à balles réelles ci kaw convoi wu Cheikh Bara Ndiaye ak Mara Niass ñu koy ñaawlu nag fu ñaawlu mën a yem ci àdduna bi foo ko mën a nattee rek ci ñaawlu ñaawlu nañu lu ko ëpp ñuy ñaawlu lii nga xam ne moom la moo Diagne Fada di def fële ci Daaru Mufti il faut ngeen comprendre ne lii élection la du guerre civile lii élection la élection la ñu nekk donc kenn ku nekk ci yenn na jël ay militant am def li nga xam ne moom mooy campagne banditisme d'état bii nga xam ne moom ngeen jël di ko def ak yoon bii nga xam ne moom ngeen jël doo leen ci am ndam parce que sénégalais yi fipp nañu mag ndaw na góor ak jigéen yaay ak doom ñëpp fipp nañu fi mu ne sénégalais yi nekkatuñu ci situation boo xam ne dañuy toog di seetaan ay band yoo xam ne tekkiwuñu dara yaakaar ne mën nañoo jàpp en otage loolu mënta nekk il faut ngeen xam ne da ngeen di nangu dogalu yàlla lii la yàlla dogal arrêté leen di agressé doomu aadama yi gis nañu agression bi nga xam ne moom ngeen def Cheikh Bara Ndiaye gis nañu agression bi nga xam ne moom ngeen dem defi fële daaru euh, euh, euh, Nioro ci kaw convoi wu Bassirou Diomaye Faye gis nañu agression yi gis nañu attaques yi waaye yéen bu fekkee yéen nee ngeen yéen a nekk majoritaire ci réew mi te man ngeen gagné ay élection doo leen noppalu jarul xeex yéen kay wóolu ngeen seen bopp am ngeen seeni ay militant man ngeen dem voter man ngeen gagner donc yéen loo leen di xeex lan ngeen di xeex ëpp leen ñu nag doole dañ leen dul topp ci li ngeen nekk parce que xam leen ne nguur gii dina daanu te nguur gi bu daanoo képp ko xam ne def nga fi ñaaw ñaawteef dinañ la àtte bu dee loolu moo tax ngeen di jafru nii ngeen di dof-doflu ngeen arrêté ko Kaffrine aussi ak Abdoulaye Daw sew Seydou Sow arrêté leen seen banditisme yii te ngeen dem jëli seeni ay carte dem voter loolu lañ leen wax arrêté leen ce banditisme que vous êtes en de faire doo leen ci am ndam parce que sénégalais yi ñun suñu maturité dépassé na fii ngeen ñu jàppee léegi ñun suñu xel yi dépassé na fii nekkatuñu ci seen caaxaan yi on n'est pas dans ça fi ngeen ñuy woo ñun ñoo leen fa gën a aay ndax terrain boobu bañ fa bañ ba suñu waxtu jotee duma nañ leen suñu leader muy usmaan Sonko ak suñu président ñuy Bassirou Diomaye fay dafa am loo xam ne ci lañ ñu teg nee nañ ñu nañu concentré wu ci programme donc ñun ci programme la ñu ne moo tax ñu ngi campagne ci diaspora bi ñu ngi campagne ci biir réew mi ñun programme la ñuy campagner bàyyi leen lii ngeen di def violence bii ngeen tàmbali du jur jàmm ci réew mi nañu amal ay élection ak jàmm ak salaam kuy gañe gagné kuy perte perte te kii perte yéen lay doon te xam ngeen ko ndax yéen fi nekk di dof doflu di di attaquer nit ñi di xataraayu di def seen yëfu dof arrêtez avec ça am ngeen ay militants man ngeen dem élection mais dem leen élection et gagner vos élections loolu ngeen wax yéen xam ngeen ne Sénégal amu leen fa 10 pour cent bu leen di déglu ndax ñun ñu ngi fépp ci àdduna bi te fépp fu ñu dem ay millions de sénégalais ñooy génn wuyu si ñu arrêté leen li ngeen di def. ndax boo leen gisee li topp président Ousmane Sonko ngeen gis lu topp président Bassirou Diomaye Faye xam ngeen ne y a pas combat entre nous arrêtez avec ça Cheikh Bara Ndiaye ñu ngi lay massaw te di la ne nga focus buñ la daaneel ñoom loolu la ñu bëgg ci lii ñu ne ci lii ñu lay woon yi bu leen ci wuyu déedéet bu leen ci wuyu du léegi Cheikh dinañ la fayul bu leen ci wuyu bul daanu ci terrain bi ñuy woote lii ñuy def nii lii ñu lay jéem a woo nii lii ñu lay jéem a xëcc nii bu ci daanu parce que c'est un terrain bu salte ñoom loolu lañu xam yow yaa ngi def liggéey bu jàggi dayoo de tey def nga loo xam ne ci Sénégal l'histoire retiendra ba nga demee Saint-Louis foule bi nga drain gis nañ ko ba nga demee ci yeneen béréb yi fuul yi ngay drain doomu aadama yi gis nañ ko ba ngay dem ci yeneen dëkk yi aussi fuul yi ngay drain doomu aadama yaa ngi koy gis yaag Mara Niass ak gone yu baax yooyu ñoom Lamine Niass ak ñëpp ñu ngi gis seen liggéey ñoom Madina Dieng yéen ñëpp ñu ngi leen di gis ñoom Ndiaye Touba gis nañu seen liggéey muy liggéey bu jaggi dayoo gars yi mbir mi lu topp président Ousmane Sonko rek fépp fu mu dem président Ousmane Sonko fépp fu mu dem ay millions de personnes dinañ ko topp mbir mi yéen ci seen bopp la doomu aadama bu nekk mu dem ci goxam mu campagne loolu mooy mbir mi kenn ku nekk ci yéen jógal nga dem ci sa gox nga campagne yow ci sa bopp nga campagne man mii ngeen di waxal jóge naa New York dem Ohio jóge naa Ohio dem Kentucky joge nañu Kentucky jóge nañu laa war a wax ndax du man rek jóge nañu Kentucky ñëw nañu euh, euh, Tennessee ñu ngi jóge Tennessee dem jooja bu ñu fa jógee dem South Carolina dem North Carolina dem Virginia dem Washington dem Philadelphia dem New York kenn ku nekk ci ñun am nga responsabilité nga gaña sa gox loolu mooy suñu responsabilité kenn ku nekk ci ñun nga gaña sa gox donc patriote bu ne bu gañee goxam ñoom fu ñuy munu ñu gañee dara dama ne génn leen génn leen ngeen dem ngeen defi seen liggéey te bu leen topp band yi ak seen banditisme bi doomu aadama bu ñu rey vous serez responsable doomu aadama boo leen gaañ vous serez responsable xam leen ne yàggatul de une semaine moo des une semaine cinq jours moo des ñu dem élection une semaine moo des ñu am suñu président bu bees muy Bassirou Diomaye Faye te képp ku yaakaar ne di nga def ñaawteef te di nga am ku la protéger bi yoon billahi wallahi tallahi yaa ngi nax sabab képp ku nekk ci banditisme bu ma doon yow nga teg ci suuf yéen xam ngeen ne Amadou Ba mënta gagné ay élection ci Sénégal bii ñu ne élection kenn dootu ko sàccati ci Sénégal loolu dama leen koy wax ngeen xam ko dama leen di laayee biir rek on a des systèmes en place yoo xam ne kenn du mën a sàccati élection Sénégal bu dee loolu ngeen yaakaar man ngeen teg ci suuf ndax loolu jeex na gis ngeen parrainage bi ni ñu leen def ba ñu demaatee ak suñu clé USB bi ngeen jéem cee dugg clé bi perturber seen système boobu moo leen di dalaat ci élection yi boo leen jéemee ay sàcc boo leen jéemee ay sàcc di ngeen ñu may cent pour cent parce que élection yi kenn mënu koo sàcc bu dee loolu moo nekk seen xel raxas leen ko ba mu set ngeen noppal diaspora bi ñu ngi leen di jox rendez-vous tey ñu ngi nii di génn Memphis Tennessee pare nañu ak waa Memphis ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax incha allahu rabbi ñu ngi continuer suñu trajet on sera à Atlanta Georgia aujourd'hui waa Atlanta ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allahu rabbi dans quelques heures xam na fii quatre heures cinq heures de temps on sera à Atlanta Georgia ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allahu léegi rek ci kanam gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dem leen jëli seeni ay carte la jeunesse yéen ñi dese akas néew seen carte histoire bi buñ ko buñ ko bind sans yéen newuñu ngeen jëli seen carte parce que ñun jëliwuñu suñu carte ñun ñëpp am nañu suñu ay carte ñun mais dama bëgg yéen jeunesse bi jëliwul ba pare bokk leen ci jeunesse bi nga xam ne ñoom ñooy changer li xew Sénégal dama bëgg kenn ku nekk ci ñun ëllëg ak sibir nga mën a taxaw xool say ñoñ xool say doom xool say nijaay xool say tànt ne man de bi ñuy ga bi ñuy gañee Sénégal maa nga fa woon loolu mooy dëgg dama ne ngeen jóg nañu jóg révolution bi saa a te ñoom xam nañu loolu ñoom dem leen jëli seeni ay carte dem leen jëli seeni ay carte d'électeur parce que ñii am nañu sondage yoo xam ne fi mu toll nii ñoom ñu ngi leen di dóor ay soixante dix à soixante douze pour cent waaye boo leen jëligee seeni ay carte mën nañ leen dóor à cent pour cent dem leen jëli seeni ay cartes dañ leen bëgg a duma ba xoj leen dañ leen bëgg a duma ba toog seen kaw bopp yi ba ñoom mu leer leen ne mënuñu ñoo gañeeti c'est fini dem leen jëli seeni ay cartes électeur dem leen jëli seeni ay carte électeur dem leen jëli seeni ay carte électeur dem leen jëli seeni ay carte électeur ci diaspora bi aussi préparez-vous partout bureau Tampa Florida tëj nañ ko yéen yéen a ngi voté ji Atlanta waaye ba léegi di ngeen dégg encore euh, suñu mandataires yi ak suñu euh, chargé des élections dinañ leen jox ñoom caam dinañ leen jox boobu information voilà bureau yi nga xam ne aussi moom mooy Saint-Louis Missouri ak ñoomin seen nee nañu yéen sa euh, maanaam tëj nañ ko donc yéen yéen a ngi ñëw voté ay Memphis Tennessee Memphis Tennessee donc Nashville aussi du Nashville Nashville aussi defe naa tëj nañ ko mais ba léegi rek dinañu am information yi ak ki nga xam ne moom mooy suñu euh, chargé des élections Cham tëj nañu bureau Seattle Washington bi aussi San Francisco ngeen di dem voter voilà a kenn bu mu découragé nag lii sëñ bi man New York laa jóge ba Memphis Tennessee jaaree ko Ohio jaaree ko ay Kentucky ça fait déjà déjà déjà ay deux mille kilomètres donc dama ne man ngeen dawal ay deux heures de temps trois heures de temps dem voté ci voilà kenn bu mu tardé Amérique moom tali yu baax a amu leen excuse te dimanche la dimanche boo xëyee sa kër huit heures du matin loo naaje naaje naaje naaje dix heures wala onze heures dina la fekk ci sa biro de vote ak sa bureau de vote lu mu sori sori sori donc bu ñu leen may benn excuse na ñëpp génn dem voté ji na ñëpp génn dem voté ji génn leen waa Tampa dem leen Atlanta ngeen voté ci waa waa North Caroline du Nord South Carolina ñëpp képp bépp bureau bu ñu tëj dem leen ci beneen bureau ba ca topp ngeen dem voté ji loolu mooy dëgg kenn amul excuse samedi ña nga xam ne jotu leen seeni ay carte nee nañu ñoom dinañu dem ci yenn bureau yi fii ci diaspora bi pour distribuer li nga xam ne moom mooy seen carte d'électeur yi pour ngeen mën a voter dimanche donc bàyyi leen loolu xel yéen ñi nga xam ne da ngeen doon kaas ne jotu leen seeni ay carte nee nañu samedi dinañu ñëw ci seen dëkk yi distribuer carte électeurs yi comme Memphis ak yeneen dëkk yi bu ñu ñëwee samedi bu ñu ko distribuer comme ça dimanche ngeen mën a voter bu ñu génnee en masse ñu voter dimanche révolution lay doon maanaam mbir mi fa lay jeexee balaa midi incha allah voté ji xëdd voté ji ndogu célébré maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu